Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo fan la ñu jëm ak covid 19 gi tolluwaay gi ci réewum Sénégal laas yéenekaay jamono ji kay mbir yaa ngay gën a gëllugóose di gën doy waar ci réewum Sénégal ñeenti doomu aadama yoo xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan yéenekaay gi duñu xam ne jamono ji nag ñaar téeméer ak ñeent fukk ñaar yoo xam ne yu bees yoo xam ne am nañ jàngoroy covid 19 am na lu toll ci téeméer ak fukk ak yoo xam ne ay cas communautaire jamono ji nag loolee kay moo jeexal réewum Sénégal di réewum quotidien duñu xam ne démb kay lañuy wax record lañu am ci réewum Sénégal ak tolluwaay jàngoro ji nga xam ne rek moo di covid 19 l'observateur donte kay a wurlee ñaay a sonal yéene kaay gi na ñoo xam ne mën na leen a naaxloo ñëw mu leen di nelawloo waaye tamit di leen néewloo kàttan l'évidence yéene kaay di jafe-jafe covid 19 gi am na ci réewum Sénégal waaye saar jamono ji ñoom itam

xam ne oto ya nañuy bëgg a rey askan waak bu bon ba tey nag dara toppewu ci le quotidien yéene moom nag xëy nag defab jàngat ci coow yi nga xam ne ci ay wi nga xam ne rek ñeneen ñi itam téeméer boo jël fukk yi ak juróom-ñaar jàpp ne daal rebelle yi daal leen di bombarder dugg tasaare dëkk ba loolee mooy saafara ñeneen ñoo xam ne ña ngay wut saafara ci réewum Sénégal muy ñoo lànk ñoo bañ aljuma ji nga xam ne moom la ñu dënmal dox dañu koy aayu jamono ji ba léegi ci génn kaay gi dafa jàngat moom itam ci askan wi nga xam ne dañuy song léeg-léeg police yi moom kay day laajte maanaam daal dañoo respecté tul tëni bi wala lu xew te jamono jojee njiitu réew mi Macky Sall ma ngay defaraat ak leeral kàddu yi nga xam ne kay kon yëkkati na ko jamono ji jur na coow ci noir américain yi moom kay dafa xam le ne gannaaw daal dañ leen di bundaxataal ci biti réew lu leen tere ngir ñu ñibbi seen réew yéene kaay duñu xamal jëlee ne ko dëgg a ji bëri na ñoo xam ne daal ay boroomi xam-xam lañu ña nga ca biti réew ne téeméer ak fanweer ak ñett ci ay gambien yoo xam ne teg nañ leen loxo ak juróom benn sénégal ci wàllu yàmba yéene kaay bi duñu xam ne Mohamed Niang woykat bi itam dina jàkkaarloog àttekat bi tey nag te lañ koy tuumaal digganteem ak këm doon bëgganteel yéene bi duñuy wax leneen série boobu ñuy wax infidèle Diallo jamono ji nag général ma ngay artu waa Sen TV di leen xamal ne yooyu bëggatuñu ko cay gis wala sax ñu guddee koo teg génération 4G bii xanaa dañuy bàyyi koon ba fajar ñu teg ko ndax du ñu nelaw. El Hadji Ousseynou Ndiaye. El